ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne moo nekk information yi tey jii soir de Ligue des Champions si Al Hadji Malick TV mu nekk lu am solo Mbappé tey jii nga xam ne match Manchester wala boog match Paris Saint-Germain bi nga xam ne doon na ko def ak gonay Juventus de terrain yi match boobee mujjee ñaari bal ci benn waaye nag Mbappé daanaka ndaje ma xaw na koo yàq. ndax ay ginaar yi nga xam ne daanaka Messi jox na ko ko mu dugal bit boo xam ne bu am solo la bu doy waar la waaye ban demee ba jeexantalu match ba moom mii di Mbappé am occasion boo xam ni bu jaar loon la bu tegu ci yoon bu tegu ci axe ak heure nga xam ni mënoon naa jox këy la di ay ginaar yu ñor xomb loolee mu teggi ko fa naqari na Neymar ca kanamam ba nga xamee ni Canal Plus maa nga koy filmer sàcc ca loolee Neymar am na taxawaay boo xam ne am na ko lu ko naqari gisee li nga xam ne mooy image bi Euh, di ngeen ko mën a gindi seen bopp Real Madrid nag euh, tong-tong na équipe bi nga xam ne euh, mooy Celtic gi mu doon dajal léegi ni nga xam ne goney Madrid yi ñoo leen demoon fekk leen ci victoire boo xam ne Real Madrid am na ko ñetti bal ci ñetti bal yoo xam ne yoo am solo la goney Real Madrid yi daal di koy dugal nga xam ni ak njëkk a dugal mooy Vinicius Junior mi ngi ko dugal du nu footballee lu toll ci juróom fukki minutes ak benn ka topp di Luka Modric nga xam ne vétéran la boo xam ni euh, bii bu rafet bu am solo la dugal euh, ci juróom fukki benn fukki minute euh, nga xam ni séngam juróom-ñaar fukki minute ak juróom-ñett wala juróom-ñaar fukki minute ak juróom-ñaar Eden Hazard mi nga xam ni nekkoon na ci ay jafe-jafe ficc na ay jafe-jafe fi mu toll nii daanaka Real Madrid moo man équipe bi nga xam ni mooy Celtic